daleen jàmm mbokki internet yi ñuy safoo di seetaan suñu Actu TV yeneen audio yu bees yeneen audio yoo xam ni képp ku ko dégg daal di jommi mu nekk ay audio yoo xam ni moom Cheikh Bara Ndiaye daal dina si àddu ginnaaw ba nga xam ni audio 1 génn na audio tamit daal di génn mu daal di des yi nga xam ni moo di troisième audio boobee troisième audio nag nekk ay audio yoo xam ni day wane bu baax a baax nit ñi nga xam ni ñoo nekkoon si ginnaaw ki nga xam ni moo di Adji Sarr doon ko may doole bu baax a baax ngir bëggoon a sàkkal pexe ki nga xam ni moo di Ousmane Sonko bëggoon koo awee si tuuma yi nga xam ni moom Adji Sarr saa su ne mi ngi ko doon teg ci kaw Ousmane Sonko ni ki noonu sax moom Cheikh Bara Ndiaye daal di na si ñëw si ab faram-fàcce bu yaatu. waaw léegi nag dama laa bëgg a yëgal dara suba. wala gannaaw suba suba ñetti fan yi man yëg naa ne Mamour Diallo daal ma tudd ko sax ab audio dina génn. Ah, waaw appel bu mu def Alpha Seynou Gueye. di ko wax ne ko léegi est-ce que mën ngaa ñëw sama kër ma la façon ne ko foo dëkk mu ne ko maa ngi dëkk boori ah ngor li nga wax si garaaw naa numéro bi tàmbalee 77 78 mhm. te jeexee 60 bu dee am ngeen numéro composé moom moo ko woo naan ko léegi est que ana ana rapport médical bi ndax mën nga koo génne mu ne ko semaine prochaine mu ne ko yii loolu mënut a xaar na génn léegi maanaam waa ji ne ko mais est que sax man ma génn wóor naa loolu te bu génnee Mamour Diallo du ko weddi moom dem na ci siis bi les secours Mamour Diallo moo ko moom ma nga naan neen nee na siis bi man xaw ma Sohit Bouté xamoo Sohit Bouté yow nga woo ku ñuy wax Viviane Wade plus de 10 appels Viviane Wade mi ngay woo jokkoo naak Adji Sarr plus de 10 appels même journée nga woo Sidi Ahmed plus de 20 appels Ahmed di woo Adji Sarr 20 appels Mamour Diallo kañ lay xam Adji Sarr gis nga lii affaire Adji Sarr bu leen neexee ngeen dem ngeen dem fu leen neex procès mais sénégalais yi ngeen di liggéeyal mënoon leen leen a ci affaire u Adji Sarr atte nañ ba pare parce que Adji Sarr dafa cuune dafa waxal boppam bu lu leer